non en fait <coughs> xam yoo xam ne je pense yàgg naa ànd ak ñoom. Mhm. parce que euh, en 2019 je les ai beaucoup financés ànd ak ñoom. ah oui oui je les ai beaucoup financés en 2019. en 2019 la présidentielle élection présidentielle. Ousmane Sonko le PASTEF. le PASTEF euh, euh, ñoom si ay plateformes yu mel ne FIT wala F24. Mhm. donc baax. soo gisee nag looloo xaw motivé ba dem ba dernière minute ma changé. Mm-hmm. parce que dama ne man forme opposition le parti au pouvoir mais je suis pour les pour les pour et malheureusement dem naa ba si biir xàmmee ne coquille vide la maanaam amuloon programme. Mm-hmm. et ce qui est dommage parce que tamit dëkk soo koy jiitee da ngay préparé wu. xam la mooy problème comme ça suñu la falee nga mën ko résoudre mais ñu fal la ba pare nga da ngay bind programme ne programme boobu ce sera terminé au troisième trimestre 2024 loolu c'est vraiment doom mais projet et les Sénégalais étaient à adhérer à ce projet ah malheureusement xam nga loolu doon naa ko plateau télé parce que dañuy wax projet mais est-ce que quelqu'un a pris le temps de lire le projet man bu ma liiree programme bi gis par exemple les sources de financement ñu ne on va trouver des sources diverses de financement loolu trop vague mhm. si laa ne lii y a rien du tout cest que c'est une copie vide et malheureusement on est passé sur les dénigrements di xas yàq deru nit yi noonu def ba dem élection euh, ba dem élection on n'a ah. jamais parlé de programme. léegi le problème c'est ñoom la wala les Sénégalais qui ont voté pour eux cent. non c'est toute la société xam nga c'est toute la société parce que waroon nañu xool ñoom lu ñu jàng waroon nañu xool seen expérience waroon nañu xool programme bi et vraiment les médias tamit waroon nañu leeral loolu. Mm-hmm. mais malheureusement nag. Euh, ça s'est pas passé comme ça parce que politique moom da wax lu la arrangé pour gagner la mm-hmm. plupart du temps loolu am Sénégal donc ñoom ils ont dit ce qu'il fallait dire pour gagner c'est-à-dire qu'ils ont accusé les autres ne yéen yéenoo a loolu taxul mu changé parce que su dee ñoom baaxuñu mais yow looy looy defar lu gën ñoom lu ñu def. Mm-hmm. et malheureusement nag amul tey ñoo ngi ko nekk PSE. PSE mu nekk programme Macky Sall. Mm-hmm. ñoom c' le point e boo xam ne programme boobu la les institutions internationales validées. muy banque mondiale wala FMI. Mm-hmm. wala ñeneen ak ñeneen. d' ailleurs ce temps ñoom waraan nañu ñëw parce que ils ont fait fait un prêt de. plus de voilà ils ont fait un prêt de plus de 1000 milliards donc ñu doon xas sax gouvernement bi si bor bi. ñoom ñoo ngi nii def na euh, près mille milliards